aoudu billahi min alcheytaan arrajim keroog ci guddi xale bi bi muy crise man mii la tëddal man lay tëddal ba léegi man lay tëddal sama néeg a ngi nii man lay tëddal amagul jëkkër waaye yàlla def na jàmm damaa tëdd ba guddi gis ko muy wekku ci kawlak bi di wekku di wekku di wekku ma yee may mun a may mun a may mun a may mun a mu ne nemm ma ni may mun a may mun a mu ne nemm ma woo ma woo woo yaayam ne ko kaay kii dafa mel ni feebar bi ko daloon dafa ñëwaat ci guddi gi fekk bis boobu liggéey na sax ba wàcc ma daal di ne ne waa léegi lu ci pexe ma ne ko dañuy assisté mu ne man de ki ma ki ko euh, fajoon ba mu xaw dafa sori ma ne kon dañ yee assisté man mii maa jóg ci guddi gi muy temps ramas bu metti ak mangam ji ñu taxaw ci buntu kër gi alkaati yi dañu doon wër ñu ne leen dañoo yor malaat biñ ko fëggee mu wàcc baax lool nag doom bu góor moo njëkk a wàcc daan lan la ma ne ko sa papa la ñu soxla woon dañoo am dañoo am ku feebar mu ne nu ngeen tudd ma wax ko ko daf ko wax sama tur rek mu wàcc ñëw fekk ñu fii daal di koy defal li muy defal xale bi tëdd nelaw ba set bi mu dem fa ak yaayam ji ñu commencé mu faj ko faj boo xam ne bi macha allah faj bu gaaw bu rafet bu amul benn problème yaayam daf ne ko loo ma am jox ma yaayam moo yëkkati li xolam attan ndax xolam bu sedd ak dal ak i teggin bëggewut tiitut man mii am nañu ma ko booleel man mii léeg-léeg ma gis si suñu mbokk yi fenn fu xaw a yooyu duñ ma su ma wootee laajte ñu ne diw de dafa feebar man leen indi leen ma ko géejawaay ki ma gis géejawaay doy na ma te buñ ko indee buñ ko fajee mu wér bu ko fajee mu wér am na koo xam ne dafa ne ma waayaas ñu jëlee kii jolof ba géejawaay dina metti de ma ne ko dama koo garanti bu ñëwee mu wér bu ñëwee day wér te ba mu ñëwee wér na waaw te ba mu ñëwee wér na macha allah muy def lu baax loolu di ci def lu baax nag bëggee wul tiitul wax dëgg yàlla ñu koy gërëm nag di ko sant te xam ne lii moom yàllaa ñu ko jaglee rek yàllaa ñu ko may dañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax a di ñaan yàlla yàlla guddal fanam wéral ay cëram yàggal ko fi lool nag yàggal ko fi lool ndax kii kat yàggam fi suñu intérêt la ndax moo ñuy fajal ba ñu wér ñu gis te bëggee wut tiitul du la laaj ba sa fit dem wax dëgg yàlla ñoo ñoo ngi koy sant di leen sant yéen it